borom seen alladi mooy ka nga xam ne yus ji dana mu màng lakum ñeel leen ba gaal fil baxri ci géej li tabtaxu ngir ngeen sàkku min fadli ci yiwam mu def innahu na ko moom buur kaana masta dañ rahiman di aj yéram bikum ci yéen de yàlla nag masta dañ di leen yéram ndax mi ngi leen tàggatal géej yi ba ngeen mën a dugal seen bato di taw di def lu di di dem te du ngeen suux mu leen yéram de wa ida mastukum ah ah ko mu masakumu eh, ndem ndem jàpp na leen abdurul lor ah, wala tattat fil bahri ci géej ah, ngir ragal ak ah, ragal ak soo walla faddu manta doola ñu da ngeen jaamu ko de illa iyaahu ndere moom de yéen nag bu ngeen duggee ci eh, <coughs> bato bi wala gaal gi ba <coughs> mbugal war a ñëw rek da ngay gis lépp lu ngeen doon jaamu rek ci këram yi ngeen doon jaamu népp da ngeen leen di bàyyi rek di jaamu yàlla di oo yàlla ndax xam ngeen ne foofu këram yi mënuñ fa dara rek falammaa najjaakum ba musalee leen ci géej ga ba xàggale leen ilal bari ci géej ja a ah, ah, aratum ngeen dëddu walis gëm de walis tawxiid de wakaana masta dañ kafuran bi wakaana masta dañ al insaanu doomu aadama kafuran bi wi daakoon xewal boromam de <coughs> buur ne afa amintum ndax da ngeen a wóolu an an yaxsifa bu mu nuur ak bikum ci yéen jaanibal ci wàllu ah, ci ji nit ñi nam defoon xaaru su fekkee ba ngeen duggee ca gaal ga wala bato ba yàlla musal leen balla boo leen eh, eh, booba nag ba ngeen xamee ne gaal gi mu ngi waaj a lab ngeen di oo yàlla ci tur wu nekk oo ko ba mu xetti leen ngeen dem nag bu ngeen demee ba génn rek ba génn rek fàtte yàlla kanaa da ngeen wóolu ne yàlla jéeri ji ngeen taxaw ci tefes gi mën na leen na man na leen a rey ci jéeri ji comme ni mu defoon xaaru na aw yursila ikum muqiir aleykum ci yéen mu sànni leen ay ay gémbaraayam de ay xeer yoo xam ne daf leen rey comme nam dafoon nit yi loolu yële summa laa tajiduna topp du ngeen fekk lakum ñeen leen wakiilan aji watu leen de afa ci am amintum ndax da ngeen a óolu an yu'idukum bu mu delloowaat leen fii ca géej gi de ndax da ngeen a da a wóolu ne yàlla sax du leen du ngeen amaat beneen soxla bu duggaat ci géej gi ba mu ebalaat leen fa a taaratan yoon oxraa weneen fa yursila tamtiir aleykum ci yéen aleykum ci yéen xaasifan ak ak ak damm mi ne mi ne réexi ngelaw de ngelaw loo xam ne dafay ñëw damm bootu bi damm gaali ndax du ngeen ne da ngeen demaat mu def leen loolu de ah fa yuhlikum tam labal leen bi maa kafartum te da ngeen weddi de summa laa tajidu topp du ngeen fekk lakum ñeel leen alaynaa ci ñun tabian ak ndimbal bi ci moom de wala takkaram naa ñun déggalal nañu bani aadama doomu aadama yàlla gënal la doomu aadama ci xam-xam. ak ci wax ak emoo ay cëram yàlla defal na ko ñaari cër yi emoo ñaari tànkam yi dañoo emoo benn sutantiwul sa morom dafa la ñaari ñaari loxo dafa la ñaari bët dafa la gémmiñ dafa la bakkan yàlla teral na doomu aadama dafa la loolu de yàlla teral na doomu adama bind na ko ndax yàlla ñetti mbindeef ñoom la am mooy mbindeef yoo xam ne dañoo mat ak mbindeef yoo xam ne ah, ah, ah, dañuy mat léeg-léeg manqué ak mindeef yoo xam ne duñ mat mukk mindeef bi nga xam ne ñoom dañoo mat te duñ manqué mukk ñooy malaaka yi de ñoom duñ mooy yàlla mukk la la la yàlla digal rek moom la ñu nekk duñ mooy yàlla mindeef yi nga xam ne nag ñoom duñ mat mukk mooy bàyyi ma yi ak jamaa daal di de mindeef nga xam ne nag dañuy mat léeg-léeg ñi mat léeg-léeg ñi wàññeeku mooy doomu aadama de ndax matam dafa bàyyeeku ci boppam matam ci wàllu yàlla la bàyyeekoo de feeg mu nga dëkk nag di tudd yàlla di bëgg yàlla ah ah di jaamu yàlla dafay nekk jaam boo xam ne jaam bu mag la de yàlla bind na doomu aadama a ah, teral ko ndaxte ñoom ah, ah, dafal na leen dafal na leen loolu de doomu aadama bu nekk yàlla yàlla teral na ko doomu aadama nag bu fekkee ne yàlla yàlla bind na ko eh, def na ci moom eh, kattanal mer def na ci moom def na ci moom njàmbaar def na ci moom lépp su fekkee ne doomu aadama eh, eh, mi ngi mi ngi jaamu yàlla topp yàlla ragal yàlla di jaamu yàlla rek eh, dana dem ba nga xam ne yàlla dana ko defal rooxo goo xam ne comme rooxom malaaka yi lay doon moom rooxom gi ak rooxom malaaka yi dañuy dañuy niroo ndax yàlla rek lay nekk waaye su mooyee yàlla déngoo yàlla yàlla daf def roxo goo xam ne comme roxo bàyyi may la nga xam ne du ittewoo dara loolu sëy rek lay ittewoo ak lekk ak naan rek loolu rek lañ itti wala moo tax doomu aadama ah, bu soxla woo yàlla bëgg yàlla dana baax ba mel ni malaaka yi dana baax ba mel ni malaaka yi waaye bu itteewul yàlla soxlawul yàlla lu dul moom amul benn soxla lu dul bànneexi biiram ak koy we dafay mujj nekk di ay bàyyi ma de wala bàyyi ma yi sax ñoo ko gën a ah, in hum illa kal an'am bal hum adallu le waaye nag bu continuer bu bu mujjee nag nekk loolu dafay nekk Euh, di di di mbindeef moo xam ne euh, euh, dafa mooy gën a bon bàyyi may ndax moom ruuxaaniyam bi sànq na ko def ndax moom dafa soxlawoo loolu su fekkee nag doomu dama dafa soxlawoo ay pexe ak xuruj ak xor dafay mujj mel ni seytaane rek de dafay mujj mel ni seytaane kon nag doomu aadama lan moo koy dimbale mu jihaat ak bakkanam di setal bakkanam ci mboolem xeet yi ci bàyyi ma ak ci gere ak ci seytaane bu boobaa dafay éeg ci malaaka yi ñam fa yéegee mooy bëri jaamu yàlla ak tudd yàlla am am sell ak maarifa jege yàlla mujj ba bokk ci malaaka yi de kooku lay alquran di wax ne ulaa'ikum xayrul bariati de kooku moo gën ci kon doomu aadama yàlla bindee na ko noonu de yàlla wax na ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim yàlla bind na doomu aadama ci bind ba gën a rafet waaye nag euh, bu continuer nekk di tudd yàlla di bëgg yàlla dana nekk loolu waaye bu bu bu toppul yàlla bëggul yàlla soxlawoo leneen zumma radat naa wa asfala saabilina ne dana ko yóbbu ba mu nekk ma mindee boo xam ne moo gën a suufe way suufe yi def kon doomu aadama ngoo yàlla teral na ko moom doomu aadama nit ku nekk rek buur nga nit ku nekk rek buur nga ak moo xam ku ñàkk ak ku am rek buur nga rek ndax buur bu nekk ah, ne dafay am buur bu nekk ah, ah, doomu aadama bu nekk xalifa yàlla nga ci kaw suuf buur bu nekk day am waruwaay buur bu nekk dana am ay bëkk-néeg buur bu nekk dana am ay ñu koy làppatoo buur bu nekk dana am ay ay ay kii ay ay ñu koy ñu koy dem di indil ay xibaar ay ñu koy indil ay xibaar buur bu nekk dana am ñi nga xam ne ñoo koy waruwaay mi muy war di dem buur mu nekk am na loolu doomu aadama mu nekk nag yàlla may na ko loolu ñaari tànk mi ñooy waruwaayam fu mu bëgg dem rek ñaari tànk yi mën na cee mën na cee dox pour dem ko buur bu nekk rek am na am na euh, am na ay jaamam yu koy liggéeyal euh, doomu aadama nag yàlla defal na la ay loxo yoo xam ne lépp loo bëgg jàpp wala lépp loo ci bëgg liggéeyale nga koo liggéeyale euh, buur bu nekk am na ay garde corps yu koy garde doomu aadama yàlla may na ko ay garde ay bëtam ay garde corps lépp lu bëgg ñëw ci moom rek bëtam bi dana ko yëg de doomu aadama bu nekk buur bu nekk danaa am ay ñu koy waral di ko utal ay xibaar di ko waxal lu xew ci dëkk bi doomu aadama yàlla defal na ko rek mooy ñaari nopp bi bépp xibaar bu xew sa ñaari nopp yi dañ la ko wax def kon euh, buur bu nekk am na ñu koy tarjumaana di ko waxal seeni làkk sa làmmiñ wii lépp loo bëgg a wax mu nekk sa xol bi rek làmmiñ wi moo koy wax de kon nit ki lu mu ñàkk ñàkk rek am nga waaye boo ci boolee nag am loolu ba pare yàlla teral la may la alal may la ay waruwaay may la ay dëkkuwaay may la ay nit ñuy liggéey nga nekk buur ci toog buur de loolu yëpp yàlla def na ko pour teral doomu aadama bind na ko bind boo xam ne bokkut ak benn bind bu mu bind eh, eh, bàyyi may defal na ko bët boo xam ne mën na cee xàmmee lu nekk mën naa xàmmee ne lii lu weex la lii lu ñuul la lii lu xonk la yàlla defal na ko loolu aaki xayawaan yi yàlla may na leen bët waaye mënuñoo xàmmee lu weex ak lu vert yàlla may na la xel moo xam ne man nga cee xelaat may na la ay ñaari loxo waaye teral na la ba nga xam ne defal na la ah, lekk yoo xam ne da koy mën a lekk muy lekk yu neex yoo xam ne mën nga koo togg lekk ku dul doomu aadama di bàyyi may ñoom ci àll bi rek la lekk ngooñ la ñuy lekk mu dëgër lool ñu koy lekk doomu aadama moom balaa moo lekk dana ko togg ba mu ñor mu lekk ko rek yàlla teral na doomu aadama ci lu mu mën a noon de wa xamal naa moom tam warloo ko fil barri ci géej gi fil barri ci jéeri ji wal baxre géej gi yàlla nag teral la bindal la ay war waay yoo mën a war ci jéeri ji yaa ngi war say eh, say yaa ngi war oto yaa ngi yaa ngi war say ah, ah, saxaar loo mu loo bëgg war am nga war waay ci géej gi yàlla defal na la ci gaal ak ay bato yoo xam ne danga ko mën a war de wa razaqnaahum tam wërsëgal leen min at-tayyibaat yi ci way teey de ah, ñam yi teey yàlla wërsëgal leen ko lépp ñam bu neex rek yàlla doomu aadama la ko defal de wa faddal naa tam gënal leen ala kathirin ci lu bëri mam talam naa ci leen bind de tafdilan ak ngëneel de yàlla nag gënal na leen ci lépp lu bind yàlla gënal na la ko doomu aadama ngoo ah, bu judd yàlla defal na ko muy war yàlla waral na ko ci kaw lu nekk yàlla waral na ko ko bu juddoo mu añ laata mu judd moom doomu aadama bu nekkee ci biir ndeyam bi la di war di war di war bu génnee ci biir ndeyam bi yaayam di ko waral ci gannaawam bi bu demee ba màgg muy war ci ci oto yeeg saxaar yeeg ak avion yeeg lu nekk mu ci war ba mu dee doomu aadama du dañ di war ba mu dee bañ yëkkati ko teg ko ci kaw tàdd dañ ko yëkkatiwaat ba ci kaw dugal ko ci bàmmeelam bàyyi mi leen nag foofu lay foloo fot bu ma sëkk continuer di waram wala dootul war ba péncam yàlla de yàlla yàlla boole ci ñuy war moo tax bàyyi mi ne sirru bu nekk ci war bi ne kenn mënu koo tudd de ndax doomu aadama lépp comme dafay war de yow ma na doo ah, fàttalikul yow ma a doo bés ba dana oo kul ah, kulla unaasin bépp nit bi yi ci njiit seen de bi ne fàttalikul bés bi nga xam ne yàlla dana oo nit ñëpp seen njiit yi moom lay oo de bàyyi mi ne doy nañu puukare fii ñin xeet yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam de bés boobu nag ku nekk yàlla dana oo ku nekk seen njiit rek njiit yu nekk rek yàlla dana leen oo de yàlla nag dana oo pénjam yàlla nag yàlla buy ootee du askanal kenn ci baayam daf na yaa yaa fulaan ibnu fulaanati du kenn ci yaayam euh, ci baayam ku nekk ci ndayam la koy askanal ndaxte am na ñoo xam ne ci àddina seen baay yi jurul leen waaye ñu ci kër gi seen baay te teg na ñoo leen jur fekk jurul leen yàlla nag du fen dëgg rek lay wax moo tax pencam yàlla bu ñu fa demee ku mu wax ku muy oote rek pour suturaal jaami dafay wax ne diw doomi diw waaye du la askanal mukk sa baay sa turi nday moom la lay ooyee ndax ñëpp moom seen yaay yi ñoo leen jur waaye am na ñoo xam ne seen baay yi juru leen de moo tax e diw e eh, sàmba doomi xadi rek waaye du wax e eh, sàmba doomi ambat du ko wax mukk de ndax am na ñoo xam ne seen baay yi juru leen de moo yàlla nag loolu lay bañ sutura googu sa danga bañ gàcce pencam yàlla moo tax yaa fulaan ibnu fulaane ci rek lay wax de ba man uutiye ku joxeem na ko kitaabu téeréem bi yemini ci wàllu ndeyjooram ulaay bi ñooñu la gaa yi yaqaraw na dañu jàng kitaabu ma ay téere seen de wala yu zamono te deebuñ wàññi kenn ca kum fatilan lu toll ni saala ah, ah, saala tàndarma de képp kuñ joxee nag sa téere wàllu ndeyjoor nga jëlee ko ndeyjoor rek keroog te xegale Omar ibn Khattab mooy njëkk jël téereem ah, ci ndeyjoor rek ne xamoon naa ne nii lay demee ne xamoon naa ne nii lay demee bés bi sóoraale woon naa ko rek bàyyi mi ne keroog rek la puukare jëriñ de keroog rek la puukare di jëriñ de ñu ne ko booba ana ana ana ana ana Aboubacar mi ne booba Aboubacar malaaka yi fëkk nañ ko ba bu ko aljana rek foofu laay dañoo ñëw gaa yaqaroon dinañ jàng kitaaboon téere seen wala yi la mën a tuddee bu wàññi leen fàtte la ñu toll nii ah ban ban ak tàndarma de man kaana ku nekk na fii aadi ci bila àddina ama di aji silmaxa walis dëgg foo moom ama aji silmaxa la fi laaxira ci àllaaxira de wa adallu te def na rees a bilan ak yoon de wa in kaadu la yaftinuunaka an alladi awxaynaa ko wasal wàcc na ba xam ne waa saqiifa yi ñëw nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ne ko dañoo suñ xur suñ xur xur nga defee màkk mu nekk xorum ni màkk nekkee xorum suñ xur mu nekkee ko xurum moom itam mu ne loolu daal lañ bëgg nga defal ñu ko màkk daal xurum ñu ngi suñu xurum mu nekk xurum de buur nag wàccee aaya bi ne wa in kaadu naka jege woon nañ la yaftinu naka di di fitnaal la ani ladi ci la nga xam ne mi mi ala ladi ci nga xam aw ay naa waxyu nañ ilayka jëm ci yow de li ngir lañ tuut alay naa si ñun xayru moom de ngir lan ñi ñi nga nga tuut loo xam ne yàlla digalul ko waxuñ la ko nga def ko de wa isan booba nga ko defee woon ah, la taxaluka kon deneen la jàpp xalilan ngay xarit de boo boo ko jàpp boo leen ko defoon rek ñi jàpp la nga nekk seen xarit waaye walaw laa walaw laa sabat naa ko bu taxatu nag saxal guñ la saxal ci dëkk ak xaar giñ la xaar kon de laqat kitte danga nga jeng euh, tarkanu ak jeng dégg euh, da laqat kitte kon xaw tuut euh, tarka tarkanu nga jeng ilayhim jëm ci ñoom chey an ak jeng de xalila ngay aji néew de bu taxutoon ak dëgëral buñ la dëgëral ci dëgg aar la kon danga nga jeng jëm ci ñoom te lañ lay oonoon de isan booba nga ko nga nga jenge woon jëm ci ñoom laazar naa ko kon danañ mosal la di di abal xayaati o fulandeeg mbugalam haddina wa jaafal mamaati ak fulandeeg mbugalam àllaaxira de eh, loolu nag boo ko defee woon boobaa su ma laa tajidu topp doo fekk la nga ñeel la alay naa ci ñu nasiran ndimbal de su boobaa boo ko defoon yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam baa ñu ne jubluwaay bi du yonent bi waaye yonent bi mooy ndabal waxi bi moo tax bu yàlla di wax ak nit ñi yonent bi la koy jaaree waaye xam na ne yonent moom du ko def mukk lépp lu mu ko santul wala lépp lu mu ko digalul yonent yi moom du ko def waaye gannaaw mooy njiit moo tax moom la ñuy waxaat de waaye moom du ko def mu ko def euh, wa in kaadu la yastafizunaka min al ardi lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yahud yi ñëw nañ ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko yow daal su fekkee yonent dëgg nga na nga na nga dem Sham gis nañ ay tegtali yonent ci yow waaye daal mboolem yonent yi yàlla mos a yónni Sham nag feeg toxuloo dem Sham dëkk fa kon duñ gëm ne yow yonent bi yàlla nga def toxul rek dem foofu génn Madina ba mu set rek ñi topp la xam ne xaa xam ne yonentu nga def waaye loolu daal bu amul ñu ñu la gëm de bu ne wayin a jege nañu la yastabidunaka di buddi loola min la yastabidunaka di buddi loola min al ardi ci suuf mooy génnee la suufi Madina de li yoxrijuka iki ñi génnee la min moom wa isan boo génnoonu laa yalbasuna deful sax xalfaka gannaaw sa illa qalilan ndare aji néew de boo génnoon boo génnoon ñi lay wax boo ko defoon kon kenn du la topp de ñoom kenn du la gëm ah, sunnatan ah, ah, mbaax la man qad arsalnaa te ñeen te ñeen yónni xabla ka ci njëkk mi rusulinaa ci yónnantu suñu de wala tajidu defut fekk tahwilan ak wotee li sunnatinaa ñeel baax ñi de aqimi taxawal asalaata julli li duluki shamsi ci waxtu dajeeg eh, eh, eh, jant bi ila xasaqil layli jëm ci waxtu muural jant bi mooy julli tisbaar ci waxtu shawaal mooy julli tisbaar ak julli taksaan ak timis ak gee wa quraan al fajiri ak julleeg fajar ak julleeg suba inna quraan al fajiri naka julleeg suba kaana masta dañ mashhudan di luñ teewee de julli juróomi noonu nag yàlla wax na ko yonent bi ne ko na nga taxawal julli juróom eh, ci waxtu wa eh, julli tisbaar eh, ci waxtu wi nga xam ne moom lañ koy julli boo xamee ne jant bi dem na baax ci digg bi nga ñu julli tisbaar takkusaan ñëw ñu julli ko ak timis ak gee te ne ak julli fay ak julli suba muy yi nga xam ne mooy salawaatul xamsi yàlla wàccee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko julli fajar nag malaaka yëpp dañ koy teewee malaaka yi nga li doon garde ci bëccëg ak yi la doon garde ci guddi yëpp ñoom julli fajar ak yi la doon garde ci guddi yëpp dañuy ñëw teewee julli fajar de wa léegi al-layli ak ci guddi fa tahajjad jullil euh, bihi ci alquran de naafilatan mu di farata la nga ñeel la de euh, guddi gi nag na nga na nga julli mooy naafila na nga def de na nga na nga julli nag naafila guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom julli guddi farata la ci moom farata la ci moom nit yi ñim nag julli guddi naafila naafila la ci ñun rek waaye yonent yàlla Muhammad moom farata la ci moom moo tax daf daan julli di julli di julli ba ay de ba ñi ñi fekk ko ba ko kanaa yàlla baalu la xa bàkkaar yu njëkkee bi mujj yi mi naa ah balaa akunu abdan shakuran da ndax waruma nekk jàmm boo xam ne damay sant yàlla de moom naafila ci moom moom naafila ci moom farata la ci moom de moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nit nga xam ne ci xeet bi moom ah, naafila la ci moom waaye ci moom farata la de moo tax mësta bàyyi taxawal guddi di julli dafay julli di julli di julli ba ay ta tànkam di nuyu de bu ne asa an yabaataka attan na mu taxawal la rabbuka borom sa ci àlla kira maqaaman maqaaman mahmudan bari buñ sant de yàlla nag dana la taxawal ca pencam yàlla man na maqaama boo xam ne maqaama buñ sant ne way njëkk ak way mujj yëpp di la sant mooy maqaamam ramm ga rek nga xam ne dana ñëw mooy maqaamam ramm gi nga xam ne dana ñëw de ca pencam yàlla mboolem yonent yi moom moo leen di de waxul waxa rabbi yow borom sama adxilni xarafe ma mudxala sidqin xarafu waaye bay aji tëkku mooy nga dugal ma dina ma dugg dugg boo xam ne dag may gërëm te du ma am dara lu ma te du ma gis dara lu ma lu ma fa sidde waa axrij nii yàlla nga génne ma ca makka muxraja sidqin génn waaye day aji tëkku de wajaal yàlla nga def lii ñeema min nga dun ko tukkee ci yow sultaanan kattan eh, nasbiran ak ak dimbale ma ci may si samay noon de waxul waxal booy dugg màkk nag ne jaa dikk na alxaqu dëgg te mooy lislaam wa zahaqa dem ne albaatilu kéeféer inna albaatila naka kéeféer kaana masta dañ sawadan di demaa koon de yonent bi nag ba muy dugg màkk gi la doon wax de jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqan de dëgg ñëw na ko dëgg ñëwee lépp lay gi bañ ko bañ ko ubbilee kaaba gi loolu ba mu duggee ci gaalu gi fekk na fa ñetti téeméeri këram ak juróom benn fukki këram ak ñetti de waaye yooyu yëpp mag leen di joxañee itam yu naan jaal xaqu wala qal baatil innal baatila kaana zahuqan mboolem këram yi fa nekk yëpp di génn de wanu na wanu nazilu def nañ wàccee min al quraan ci al quraan maa huwa la moom shifaa'un saafara la tukkee koo ci leer wa rahmatun ak yërmande lil mu'miniina ñeel way gëm ñi de wala yasidu defu dolli moom arko a way tooñi illa xasaaran dara perte de wa ida anamna ndem xeewal nañu alal insaani ci yéefee a aarada mu dëddu wali sant wana a tam lem bi jaanibi ci wàllam wa ida masawu ndem laal na ko asharu ñàkk ak tattat kaana musta dañ yow tan di naa ko akoon yërmaan yàlla de qul waxal kullun képp ci ñun ak yéen yamalu dana mu jëf ala shakilati ci yoonam de fa rabbukum borom seen aalamu moo gën a xam bi man huwa moom aada aji jubla mustabilan ci yoon rek wa yasalunaka danañ laaj la kooku lu ko wasal wàcc na bi nga xamee ne yahuud yónnee nañ ca Quraysh ne leen dem leen ngeen wax yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem leen ngeen wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dem leen ngeen wax yonent bi ngeen laaj Muhammad ñetti ñetti yëpp bu leen tontoo ñaari bi mu woyal ko ci yàlla ngeen xam ne yonentu dëgg la bu leen tontoo ñett yëpp ngeen xam ne du yónnantu ñi dem ngeen laaj ko ruuxu ak ngeen laaj ko bi nga xam ne dañ na àddina lépp ak ngeen laaj ko tamit xale yi nga xam ne ñoo génnoon gàddaay ngeen laaj ko ko de mu tontu leen ngeen laaj ko ko xiste bi dana ñëw ci kanam ci suratul kaafi dana ñëw ci kanam ci suratul kaafi suba incha allah waaye wa yasalunaka danañ a la ani ruuxi ci ruuxu de beneen laaj ci ruuxu qul waxal ñeel leen ak ruuxu ruuxu min amri rabbi mbiram borom bi la de ruuxu nag mbiram yàlla la de bañ ko laajee loolu ñetti yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen a wax ne leen dinaa leen tontu suba ngeen ñëw ma tontu leen de te wax insha allah dana ñëw ci ikaafi fàtte wax insha allah loolu ba amee nag bañ koy ñëw laaj ko ko xamul ko ne teg fukki fan ak juróom wax yu gi dagg de wax yu gi dagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ba nga xam ne sax mbir mi jaaxal na ko waa Quraysh yëpp di wax naan kii li ko daan dikkal di wax ndeke yooyu yëpp yu bi jaaxal na de laaj nañ ko ay laaj ba tey tontuñu ko yonent bi dem na ba nga xam ne ah dafay éeg ci doj ne dafay xaru dafay xaru am nga nit bëggul ay noonam ndox ko de noonu nag bi loolu amee Jibril di ko defal na ko yow yonentab dëgg nga def yonentab yàlla yonentab yàlla nga def yàlla nag wàccee suratul kahfi ci moom wax ko na ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha allah de bul waxati dara ne dinaa ko def suba lulut insha allah nag mi leen ruuxu mbiram borom bi de wa ma utitum joxu leen yéen yahood minal ilmi ci xam-xam illaa qalilan dara aji de yàlla nag joxul leen xam-xam ci xam-xam lu tuuti la leen ko jox de tontu na leen ne min alimil amri muy jugee ko ci mbiri yàlla la yàlla dafa bind mbindeef yi alamul xalq moo fi nekk ak alamul lam lépp loo xam ne luñ mën a laal la rek rek ci alamul xalq la bàyyee ko lépp loo xam ne ci lëf la bàyyee rek loolu mooy alamul lam ri ñoom ruux nag ruux nag ci alamul arwaax mooy buñ koy wax alxaybu wa shahaadatu wala dunya alaxira xes ak maana zaahir baatin loolu wala ñu alamul xalqu alamul lamb loolu ay tur yoo xam ne dafay dafay dëppoo de dafay dëppoo boo alamul xalqu mooy mooy Euh, euh, mooy mooy xaybu alamul lamru mooy shahaada lii mooy maanawi lii mooy essiire loolu euh, yow loolu kon alamul xalq moo fi nekk de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne njëlbeen la yàlla njëkk bind mooy rooxu de ñii ne ci rooxo loolu moo gën a wér li yàlla njëkk bind mooy rooxo ci la am moom la yàlla njëkk amal yàlla njëkk amal mooy rooxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu am rek ci rooxu googu la ko amalee de yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla wax na ko ne ko bu taxatoon ak yow duma bind dara bind naa la ngir sama bopp waaye mbindeef yëpp bind naa leen ngir yow de wax ne ne moom yonent bi ne man maa ngi bàyyeekoo ci yàlla waaye jullit ñëpp ci man lañ bàyyeekoo bàyyi nee na dafa am teggin waaye jullit ak lu dul jullit yëpp ci la bàyyeekoo de kon li yàlla njëkk bind mooy xalima gi wax nañ ne yàlla bind mooy xalima gi ñu yàlla mooy bind mooy duratul bayda ñi ne lu yàlla njëkk bind mooy malak euh, euh, euh, mooy malakul kurubiya lu yàlla njëkk bind mooy xel waaye loolu yëpp dafay dellu rek ci rooxu rek mooy rooxu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp dafay dellu ci rooxu ci rooxu yonent bi sallallahu ci la yàlla amee lépp lu am Euh, wax na ci xaqi aadama ne bind naa aadama mu bàyyeekoo muy mbindeef mu bàyyeekoo ci ban ma wal ci moom rooxo rooxo googu nag mooy rooxo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñun ci suñu xaq ñi doomu aadama yi yàlla bind nañu bàyyeekoo ci aadama doomu aadama yëpp ñu ngi bàyyeekoo ci toqantal ma néew waaye ba mu leen bindee ba mu mat dafa wat ci ñoom dafa wal ci ñoom rooxo roxo googu mu wal ci ñoom nag mooy roxo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xaqi isa ba mu ko bindee moo wal ci moom roxo roxo googu mooy roxo wa ah, rek mu moom kon lépp lu am rek ci àddina mi ngi bàyyeekoo ci leera yonent ci leera yonent bi kon aadama yàlla mi ngi ko ah, ah, amalee E, e ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bàyyi mbindeef waaye muhammad mooy bàyyi roxo yi de mu loolu ci loolu lay junju di wax ne aadama aadama ak ak lu ko yées yëpp ay doom yëpp dencam yàlla sama suuf drapeau la ñu nekk de kon roxo kon roxo ñu noonu roxo buñ ko laaj yàlla amal rek yàlla mi ko amalee ci roxo yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa de wala incha allah wallaahi dem soob nañu la nazaba la ñu demee ah, billadi ci la nga xam ne away ah aw ah, xëy naa wax yu nañ jëm ci yow de bu ñu sooboon eh, li ñu ni ci yow te ñi ñi ñi demee ko de zumma laa tajidu topp du fekk la nga ñeel la bii ci moom alay naa duñu wakkii de illa lu fi nekk desal nañ ko moom alxuraan rahmatan muy yërmaane mi rabbika tukkee ko ci borom sa de inna fadlahu naka nga nelam kaana masdadan kabiran di aji màgg alayka fa yow de qul waxal lay jamaati ndem eh, eh, eh, donte booloo na al insu nit wal wal jinne jinne wal jinnu ala an yaatu pour ñu dikkee bi misli hada al qurani comme bile al quran ci fasaha ak balaaga laa yaatu na deekuñ dikkee bi misli kemam de walaw kaana donte nekk na baax du ñeen seen zahiran di dimbalante li baal yi ñeen ñenn ñi a ne alquran ji ni teg ji ni yëpp buñ daje woon pour bëgg indi lu mel ne alquran mën ko def wala xas sarab naa ñu njëkkiral nañu lin naas ñeen ñi fi àll ci biir alquran ñu kulli masalin ci bépp lépp de dafa abaa bañ na ak feru naas yi gën jaa bari si nii te mooy yëfir mag illa kufuran dara duñ ko weddi de waxaaloo wax nañ lan nu'mina gëmul tin la laka ñeel la hatta tufajjira bata nga ballal lanaa ñeel ñi minal ardi tukkee ko ci suuf yan boo aan balluwaay de yow yonent yàlla Muhammad waa Màkka ñoo wax duñ la gëm mukk loolu nga ball euh, ci ci ñun de ay ay ay sewn yoo xam ne dafay ball ay ndox aw takuna i ka nekk la ka a la jannatun tool min naqiilin ci tàndara wa inabin ak inab fa tufajjira tam ball anhaara sewn ya xilaalaha ci digg seen tabjiran ak ball i ka rot asamaa asamaan kama ni ki ñi nga nga waxee ko alay naa ci ki ak ak ak ak dogite aw te ci ikke dikke billaahi ci yàlla wal malaayikati malaayika xabila ñi aji janoog ñoom de aw yëguna ikke nekk la ko ñeel la baytu néeg min zuxrafin ci burus aw taraqaa iki héeg fi samaay ci asamaan wala numina te huñ dëggal li ruqee ka ré ay éeg sa hatta tunazila bat ba nga wàcce alay naa ci ñun kitaaban téere ah, buy dëggal sa yónnatu de boo xam ne naqarahu def nañ jàng ko ñun nag duñ la gëm ñoom nag lii lañu wax yonent yàlla Muhammad waa mag ne ko duñ la gëm mukk ludul ludul ah, nga ballal ñi ay seen yoo xam ne dafay ci biir mag ak yow mii tamit am ay tool yi tàndal ndax yow mii da nga ñàkk amu yaa ngi wax ne am yonent la ñu ballal la ay ay tool yi tàndal yoo xam ne ah, ah, da ngay am ay tool yi tàndal am ay enam te ci digg tool yi am ay seen yu koy dox yoo xam ne moom nga koy roose wala. wala euh, asamaan si euh, euh, rot dogite asamaan rot jëm ci ñun comme ni nga ko waxee wala nga dikkal wala yàlla ñëwal boppam yàlla ñëwal boppam wax nañu kii maa ko yónni bàyyi mu loolu moom kon jarut mu yónni moom moom yàlla wala malaaka yi ñëw wala malaaka yi ñëw janoom ñin wax ni ñi yow yaa ko yónni wala ñu gis nga nga am néeg boo xam ne néeg bi dafay fees del la kulus wala ñu gis la ngay éeg ci asamaan di dem ko ñëw di indi wari te it boo éeg la ci kaw asamaan di éeg ñu gis ko lu tax ñu gëm la ba tey nga indi téere boo xam ne dañ ci bind suñ tur naan bii dem na ci abu jaari bii orgotu bii shaybatu wax ne yàlla kan moo ma yónni mu jëm ci ñi feeg loolu amul duñ la gëm de yeneen du xul waa a yeneen du waa naan xul waa xul waa ñeel leen subhaana rabbi tub na ma sell a borom sama alkunta nekk naa illa basharan de dem bindeef rasulan ke di ko ñoon de man de nekkuma lu ab yonantu rek laa yonantu rek laa de ma mën a annaas ñaan yu ñu goti ñi gëwa i jaahum ba diggale alhuda jubde illa an qaalu goti ñi wa dekkal na yàlla eh, eh, fi la ardi ne leneen doo mutmain la ñoo xam ne ne samaay tukkee ko la ñu yónnee xul kafa wa baynakum ak diggante seen de wa man yahdillah képp ku jubal na ko yàlla boobu moom al muhtadi ñëw ko awliya aji dimbale leen min duni ku duma woon ak a te def na pang leen yowal qiyaamati ca pencam yàlla alaa wujuhum ci tanam seen awliya na ñuy way kumba wa a ñuy way luur wa summa ñuy way tax de ma waawum tàkkuwaay seen jaanaw mooy jaanaw le ku lama xabar te saa bu dalee hmm? innahu naka moom kul waxal ah, ah eh, inna xul waxal kafaa doy na billaahi yaa shahidan seede bay ni sama diggante boo bàyyi kum ak diggante leen de inna nag moom kaana mas dañ ah, moom moo ah, moom yàlla xabiran di aji xam bi ibaadi jaam basiran ku dul moom de wa naqshanu te kanam seen om yéen ñiy way kumba ba bokkuma ñiy way luur wasuma ñiy way ah, way tax de ma waawum tàpp waaye seen jahannam mooy jahannama kon na maa xabat saabu dalee mooy ah, ah, safara ba mu leen lakkee zid naa moom ñu dool leen saxiran ak ceeneer de zalika loolu jazaahum mooy fay seen bi annahum ci sabab suñu ko ñoom kafaru wét nañ bi ayaat naa ci kaw def suñu wa qaalu wax nañ ngir weddi dekki ay daa kunnaa ndax nekk nañ alaman yaxur baata ñi di way funa innaa la ko ñun la ma foof suna ñu njëkkaleen xalqan ci bind jëti dañ koy aji buur ne awalam yaroo kanaa xamul anna allah naka yàlla allazi mooy ka nga xam ne ak xalaqa bi naas samaawaati asamaan juróom-ñaar wala ak suuf juróom-ñaar xaadirun ko mu diig nga mislum de wa jaala def na loolu ñeneen aji leen diig dee sikki fii ci moom fa abaa bañ a zaalimuuna way tooñ de illaa ku bëra ndëra weddi waxal loo antum doon nekk ngeen tam di moom ak xazaayina rahmat rabbi nam bi yërmande ya nam bi yërmande borom sama isan boobu bu ngeen ko moomoon la am sa tuñ kon da ngeen dundal de wakkaana masalan insaanu nit xaturan dina dina eh, eh, yaakoon de wala xat aatee naa ñu de jox nañ Moussa Moussa ci sa ayaati juróom-ñeenti eh, kaawte bay naa di aji wir de mooy loxo la ak xet wa ak tuufaan ak ak njéeréer ya ak walga ak mbott ya ak deret ya ak faar ga ak ak ak ak juróom-ñaari ati de koore de ak wàññi di wàññi seen meññeen de فسألنا جل بني إسرائيل بني إسرائيل إن جاءهم بديك لنا فقال لهم يا فرعون فرعون إني لك من لا أظنك لنا من جرت يا موسى يا موسى مسحورا ngay guñ ngay guñ damal xelam de yow de jot naa ne yow ku dof nga de xaala ba mu ko waxee de xaala wax Musa laqad alimta xam nga maa anzala wàccewul awlaaye ñii de kaaw fi daa rabbu samawaati dara borom asamaan juróom-ñaar wala de de way nii nag yaa Firawna yow Firawna masburan ngay ñoom ñaar jot nañ Firawna jot na ne Moussa dafa dog waaye Moussa jot na ne Firawna yow yow yow ko xalaat nga ne lam jot mooy dëgg de faaraada tam na mu andies ta bisoom ba mu génne leen mi leen aar di si suuf dafa aar naaw tañ labal ko man naa waa ñaar la moom jëmi at boole seen waxul naa dañ wax min baa yi ba gannaawam li bani Israël ñeet bani Israël uskuru dëgg ne aarada suuf ta mooy saam bani Israël jaan leen jigi na waxtu laa xale dëgg bu mujj ba ji naa ñu dikki bi ku ci yéen la bi fan ngeen mbooloo de bu bi xàq ci dëgg an la naaw lañ ko wàccee moom alquran bu bi xàq ci dëgg na lañ ko wàccee def wa maa arsalnaa yónni wuñ la yow Muhammad illa mubashiran ngay aji bégle képp ku uh, uh, na mu dem aljana wa nazira ngay aji waare de uh, wa qur'aanan alqur'aan wàccee nañ ko faratnaa muy luñ tattale de muy um, um, um, muy luñ fasale wàccee nañ ko ci ñaar fukki at ak ñett de li taqra'u ngir nga jàng alan naas ñi alal mukti ci yéexee de wa nazalnaahu wàccee nañ ko tanziilan ak wàcce de qul waxal yéeféeri màkk aminu gëm lañ bii ci alquran aw laa tuminu ikki ngeen bañ koo gëm loolu xuppi la waaye inda lazina nga xam ne uutu yoo xam ne alil ma xam-xam min qabli ci njëkk ida yutla leen jàng nañ aleen ci ñoom alquran ay yaqiru nañu rot lil asqaani ñeel saxtana seen de sujjadam ñi way sujjo way xool ne wa subhaana rabbina te namasalak borom suma in kaana dem nekk na ga eni ɗin ɗin ganle ga waktu rabbina dela borom suñi lama xoolan way def lañ ko def wa yaqiruna def na rot li asqaani ñeen saqana seen yàpku na ñi jooy way ɗum deebu dolli leen deebu dolli leen deebu dolli leen an moom alquran xuslu an dara toroxlu le qul waxal ado ootee laa yàlla ñoom nag dañoo wax ne ah, yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moom daal kenn xam ko tey bu ko neexee yàlla te eh, allahu tey bu ne rahman yàlla na tudde bu nekkul waxal adoo woote laa yàlla a woote ek a tadoo ku ngeen mën di oo rek wala wu ñeel na moom yàlla alas maa wutul al husna ye aji rafet tur yi ngeen oo rek tur bu ngeen mën a oo rek tur yàlla le ndax Musaylamatul Kazzab moo tuddee woon boppam rahman mboolem tur yàlla yi nit mën na ko tuddee ko moom waaye laaw kenn du ko tuddee boppam de benn buur bu mbëru moo ko mosoon a def tuddee boppam laaw daf koo tuddee rek ci saa si biir ba see ba jeex mu dee de law ñe alusna alusna tur yaay aji rafet de li ci topp wala tajar bul jàng bul jàng wala tajaar bul biral bi salaati kat jàng sa wala tuqaabit bul yaru bi aati moom de kooku tadir sàkkul bay na zaalika diggante yaru ak biral de sabilan mu yoon de waxul waxal alhamdu cant lillahi ñeel na yàlla leen yàlla mi xam ne lam yatadir jàppul wala lan doom de wala yakun nekkul lawu ñeel ko sharikun bokkaale fi mulki ci nguuram de wala yakun nekkul lawu ñeel ko waliyun ak dimbale mina zulli ci aji ci aji torox de wa wa kabiru màggal leen ko takbiran ak màggale allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidil awwalina wal axirin yàlla bu ko tàmbali ba agsi fii yàlla na ko àggale jàmm te bañ cee dem ndog yaara bi yàlla ñu ko xam dëgg-dëgg yàlla ko xamaat yàlla mu ñu defal tawfeex bañ tàmbali ak taaj taw baqara ba tey jii ñi àgg ci taasif bi yàlla mu ko motti euh, euh, bañ jeexal xaaj ko bi di dugg ci taasif bi yàlla mu ko motti li commencé ko ba fii yàlla ko àgg di jàmm te bañ seen dem ndox yàlla mu ko xam dëgg dëgg yàlla nañu ko xamal lépp baat boo xam ne fi rée nañ ko dund yàlla nañu ko ci kem ba am bi yaara bi lépp luñ ci juum yàlla nañu ko yàlla jéggal ci barke Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala yàlla yàlla dimbale ñu yàlla barke alxuraan wàcc ci ñu yàlla barke alxuraan wàcc ci ñu barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax alxuraan yàlla ka ka wasal ak ki ñu ko wasal ci moom ak li tax ñu wasal ko ci moom yaara barke diine lislaam barke maam alxaaji Abdoulaye allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim suba nag